yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen. di sant eh, sëñ di ñaanal sëñ Muntaxa yal na fi yàgg na fi yàgg lool ci wér yal na fi yàgg lool ci wér waa kër Xaadimu Rasuul waa kër maam Cheikh Rafal yàgg fi lool ci wér ñu ñaanal sëñ sëñ Fallou Mbàkke mi di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci wér te yàgg noo jiite di ñaanal sëñ sëñ Ballou Boussa du koy ñaanal mu yàgg fi lool ci wér di ñaanal sama mbokk jigéen ñi nag nu gën a góorgóorlu gën a takkaayuwaat ci liggéeyub sëñ bàmba bi ndax moo fi nekkat ne ci yoonu sëñ bàmba lépp lu muy tere yàlla bu mu ci fekk bu mu ci fekk sunu njaboot lépp lu muy digle yàlla nañ ci fekk fekk ci sunu njaboot ñu ñaan yàlla lu nu man ren rek bu déwénee yàlla nañ fi yàlla bàyyi nu gën a góorgóorluwaat gën ko fiddaliwaat sunu loxo saay ba def lu ko ëpp sant naan nag ba fa kanam yàlla maa ngi lool julli ci yonente bi salallaahu salaam mu tedd wa damaa mënul wax nag waaye na guyu waaw sant nañ leen bu baax yal na ngeen fi yàgg lool ci wér jërëjëf barke borom Touba asalaamaaleykum yéen waa jàmbaari Serigne Touba yi maa ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëñ Mountakha di ko ñaanal sabaram yàlla guddal fanam lool wéral ay cëram noonu laa koy ñaanaleet mbooleem jàmbaar yi ñu àndal liggéey sëriñ Touba bi ñu ci teete lool. di ñaanal sëñ fàll bu sa ñu jiital jiite ñu ci liggéey bi ñu ngi koy ñaanal saabaram yàlla guddal fanam lool wéral ay ciram moom sëñ Ibrahima sëñ Kàbbu Baye Ñang sëñ Fallou Mbàkke ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare Baye Sëy Baye Ñang ñu nuyu ñëpp di leen ziyaare di nuyu yaa Xadi Mbeng yàbb Boussa Seck ak mboolem ñi ñu àndal liggéey Sëriñ tubaab bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare te xam ne léegi dara dékku fi daraat amu fi lu dul sëñ bi rek képp dong moo fi nekk ñuy ñaan nag yàlla mi nga xam ne nii moo ñu kartanal ba ñu mën a nekk ci jumaa ji di ko liggéeyal ñu ngi ñaan mboolem képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu wala képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi te bëgg cee ñëw ah ñu ngi ñaan saabaram yàlla yal ni la yàlla guddal fan wi wéral cër yi ah, xëcc la ba nga ñëw ba ñu mën a bokk liggéeyal sëriñ Touba doo lay seexal xaddim jërë ngeen jëf baal naa ñëpp ak na ma ñëpp baal àq. jiite di ko tàmbalee ci suñ imaam sëñ Fallou busa ginnaaw bu ñaanee sëñ mu Mountakha mu yàgg fi loolu te wér sëñ Mountakha yàlla fi yàgg te am ak wér barki Cheikh Ahmadou Bamba wàcc ba ci Cheikh Ahmadou Fall Boussa mi ñu jiite moom itam yàlla fi yàlla yàggaloo ko fi may ak kàttan bu mën a wéy liggéey sëñ bi ak sëriñ Fallou Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal moom it may ko wér ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li may bëgg a wax nag mooy li may dellu wax mooy damay damay soññ sama moromu jigéen yi ñu góorgóorlu te xam ne liggéey bii kat bëgg cee bokk sax taxul nga bokk ci mën na yàlla xam ne ba ma ci dalee bëgg a bokk yan xamul kañ la billaahi wallaahi waaye maa ngi sant yàlla keroog bi nga xamee ne yàlla dogal na mu jaare ci sëñ bi bu sax ñu ngi koy sant yàlla na taxawaay mu yàgg moo fa njëkk a ñëw daane bu ngeen doon mat oto sax de dana leen man di fàggul oto waaye da ngeen ko dul mat may ñaan nag ngeen defal nu ñaan ba nga xam ne ñëw da ñëw jafe yàlla leen yomb ngeen ñaanal leen ko bu baax muy jigéen umul xuraa yi bari ñoo xam ne seen ñoo am na gàllankoor waaye dañoo bëgg ngeen ñaanal leen gàllankoor bi dañ loolu leen di ñaanalaa leen man mii di wax lii tamit man soxna Astu Ñing sama waajur nekk sëriñ Ñing rek mbokk sama waajur nday ak baay Isaa Ñing sëriñ Ñing yàlla dogal dafa bokkoon ci ñi tabax ci jumaa ji ak sëriñ Isaa Ñing ndax booba sëriñ Fàllu dafa dafa laaj këri këri ñi sëñ Tuubaa seexal ñëpp kër gu ne laaj na fa ay ay nit léegi sama waajur nag moom yàlla dogal ci alaaj Ibrahima Dia baak alaaj Serigne jax di la jébbalu woon alaaj Serigne Dia tànn Serigne ñi nga boole ko ci ñi Serigne Fallou soxla ñu jumaa ji da cee bokkoon sama baay it moom moo taxawoon ca kër ga maanaam moo yoroon weeru maalum dépense bi yooyu bàyyi Serigne féetewu ci jumaa ji moom ci continué ci liggéey sama baay teewutoon tamit mu bàyyi di ñëw di ñëw ndax léeg-léeg bu ñëwaan jógaan Dakar dégg naa bu ñëwee ci kër gi lu mu am dafa ñëw def joxe dépense du tee mu ñëw fii tamit ci bërëb bi kii di bàyyi sëriñ ñi ngi tamit sama rakki bàyyi moom xam ne moo liggéey bi nee na ma nee na gëj na ma am na benn bis ma ma bàyyi liggéey jumaa ji ñuy yenu añ nee na a añ fii jóge jumaa ji ba aliya booli bu mag nee na kay ma yéege ma yennee ko ba teg bool bi sama fii digg bopp bi def ne duppet der bi dañ tege fële wur na sëñ Tuubaa billaahi moo ko nekk li ma dégg nee na fekk damaa xalaat ma ne sëñ Fall dafa maa gëj a xam naa fàtte na ma waaye nee na kere bi nga xam ne naa ba yennee ko rek nee na na ma jàkk ne ma sëriñ xàmmee naa la de du ma la fakk mukk waaw mu ne ko sëriñ xàmme naa la du ma la fakk billaahi wallaahi moo nett li moo dégg moom fi ne nii ak njabootam moo fi nekk sëriñ moom wàcc na ab liggéey waaye ba tey moom mbirum sëriñ Fallou mu ngi dox ci moom moom ci njabootam la wàcc billaahi wallaahi barke sëriñ Tuubaa kenn ñëw sa moom jigéen ñi sax am na ci ñoo xam ne dañoo tukki seen borom kër dañu la yóbbu billaahi wallaahi moo tax nag liggéey bi ku ci ku ci ku la ciy dugal la ci soñé rek ko mën a dimbale waaw ma ñaana sama mbokki soxna yi ñëpp nañ góorgóorlu bu baax te lépp luñ jàpp lu mën di doon lu ne nañ jiital liggéey ak lu ñu am bu ñu ko xeep fii buñ ko yéem dërëm bu waaye amee tamit fexeel ba lu ca dogee rek fexeel mu ñëw fii man ne loolu laa fas yéene te moom laay sant tamit ñu ma ku ma làngool ñoom ñi tamit ku ci tardé ma la gis dama la wax diw de lu tax ñëwoo dara leen a bëggal baax rek yàlla xam na ko billaahi wallaahi du ma bañ sax dama leen di wax ne leen jumaa ji de ku ci defut daa am ñu ci des te am na ñu ciy liggéey ñoo xam ne waruñu noo gën a bëgg lu baax loolu dama leen koy wax ba du set waaw kon boog asalaamaaleykum maa ngi sant ñëpp nag waaw ngeen jëf yàlla seen taxawaay yàgg salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo leen nuyu bu baax a baax leen sant leen gërëm di ñaanal si Muntaxa mu yàgg fi lool te wér te ànd yàgg fi lool te wér li gis ndox ñu ko am am ko di bëgg ñëpp ñu ngi nuyu ci baax tur suñu affaire Bousso ak sëñ Abdoulahad Bousso secrétaire général muy sëñ Abdoulahad Bousso Moutalib ak sëñ Abdoulahad Mokhtar sëñ Abdoulahad Bousso ak suñu Fallu ak suñu jëwriñ ji nee mi leen sant bu baax a baax ci liggéey bi ñu leen sant leen gërëm bu baax a baax suñu afa neen mi ñuy sant ji gis nañ seen passé seen ak seen taxawaay bu rafet bi ngeen def ak seen dogu naa yu tàng waaye tuddee da ngeen da bu nekk ci liggéey bu leen wàcce sax du ngeen nangoo da dogu ak seen jàmbaarte moo ko waral kon neen mi sant baax lool di leen sant baax baax baax seen seen jàmbaarte googu dafa di yàlla jàmbaar ngeen jàmbaar lool ndax ñëw ñu ci am ñoo xam day ñëw xëy si ba mu naaj ñu daw dem ak dem ko waral noonu xam mi tax ngeen def kon yàlla leen fay boppam liggéey liggéey suñu jumaa ji moom ku képp ku ko yaa ngi fi yaa ngi fi na yàlla mbokk ëllëg ne ëllëg dañu bokk suñu tubaab day bokk ñi ñi ndamoo ëllëg kon nag ñi waat ñëpp gën ko fonkaat bu baax a baax gën a fonkaat liggéey bi gën ko joxaat worma gën ko joxaat gën koo joxaat cër te gën a liggéey bu baax te képp ñoo xam ne gis ne bëgg bokk ci liggéey bi eh, te ñu ngi koy tàll loxo bu baax bi liggéey ñëpp xañ nañ ci liggéey bu yaatu la boo xam ne ku noppi jox sa morom ku nopp ku juyee kala kala wutoon lay xaar kon nag niñ ci góor niñ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax fonkaat ko bu baax a baax te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa moom amul dem dem dem ba jeex rek kenn ñëw rek kon nag eh, nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne Sëriñ Tuubaa moom ku ko liggéeyal ëllëg lu ñu yàgg-yàgg da nga xam ne du nax say muk mukk mukk doo doo perte doo ku liggéey doo perte de kon nag nañ nañ ko gën a fonkaat bu baax a baax te xam ne jumaa ji ñëpp mu ñu ngi koy dabu si di ko tàmmu si ngir nga xam ne lu baax baax na fu ne waaye jumaa ji la rawati jumaa ji la rawati kon nag nañ ci gën a góorgóorlu baax a baax te xam ne lu fay def du neen mukk mukk mukk lu fay def du neen kon lu ci waay def rek na na na xam ne euh, ëllëg ëllëg euh, bu bu ci këram dana xam ne def lu baax bu yëgoon yokk di ko yokk naa mu yëgoon dafa liggéey ndax kat eh, ni ko suñu Fallu waxee léegi ëllëg ëllëg yow xëyam jëf lu baax dafa jeex mukk wala soo yaata faxal li la mu sa tan foofu in faxaafaloo wax na ne ñi ko yow bu ñu jigoon tey yella ne leen ju leen eh, ñu jàmm ñëwaat ci àdduna jàmm si yàlla bu ñu doon ay waxtu sax dañuy sant lool ndax lan moo fol du dara du jeex moo tax kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te xam ne loolu barka am solo kon ñoo ngi santaan ñëpp suñu fàll ne daal na bu baax a baax a baax gërëm na leen bu baax ci liggéey bi ndax kat jàmbar ngeen lool ba ngeen lu baax lool kon nag yàlla suñu Tuubaa taxaw leen àdduna alaxira yàlla suñu Tuubaa sàmm leen te yal suñu borom yàggal leen fi eh, yàlla suñu borom dem yaa ngeen dem ba seen seen seen seet awu leen ci ci liggéey bi yaa ngeen dem ba seen seen seet awu ci liggéey bi ci wax suñu Tuubaa bi lépp li ngeen def ci lu baax yàlla bu ci dara naax saay yàlla yàlla ngeen jot li gis lépp lépp mos dem ci njuumte yàlla suñu borom jéggal leen ko ngeen ngeen suñu borom leen ko ci wax suñu Tuubaa mi ñu ngi ko ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm gërëmaat ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ baax a baax a baax sant nañ ñiy àndal ñëpp suñ Cheikh mi ak suñ Elimane Sène ak suñ Kabou Ñing mi suñ Ibrahima Ngom ak suñ Saliou Guèye ak suñ suñ Mbacke Dia ak Baye Sey suñ ndaw lañ yoo xam ne ñi ñu ay ndaw la waaye tiwut bis moom saa bu ñëwee dañuy dag seen yitte yëpp ñëw nekk ci liggéey ba ba mu jeex ñi doo dem àgg seen liggéey loolu njàmbaar rek moo ko waral kon nag sant nañ baax a baax baax sant ñi sant leen leen leen gën a baax baax a baax ok jërë ngeen jëf sant nañ baax jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi